قصائدي من معجزات المنتقى صلى عليه من هداه وانتقى قصائدي من معجزات المنتقى صلى عليه من هداه وانتقى هاجت قصائدي قلب كل من له سعادة ولن خاد الأمن tey la bis bi eh, fii ci eh, jumaa ji sëñ am sa teew na ak mboolem taalibe yi yéen ci biir liggéey bi loolu ñu leeral tuuti rek. waaw biir liggéey bi day sëñ Abdoulahi li sëñ su wax léegi rek dafa wax ni. yëg-yëg bi mbokki taalibe yi am ci kenn ku nekk ndigal Cheikh Mouhamadul Mountakha yi nga xam ne la mu ci jëkk a fas mooy sant sëñ Tuubaa sant goo xam ne amul ab dayoo ak laxasuwaat nag yeesalaat pas-pas yi jëme ko ci sëriñ bi day mel ni loolu la yëpp yëgandoo moom la sëñ Yuusu wax ni. damaa ragal ne sax xanaa waa ahlu badrin dañoo wàcc si tey lam waxoon ne alfun wa alfun wa alfun ba daraw jeefan fii daalikal waqti mi man shanaan aduma gis liggéey bu réy bii di sax Mouhamadou Mountakha wax ko ne ko ndigal lii ma la jox boo ko defee woon ci sa urum ba rafet naa jot ci ne yow rek ak sa mbooloo li ngeen ci li ma ci bëgg lépp danaa ko ci am waaye si su dee wax ne du ma du ma du ma du ma boddi kenn damaa yaatal pas-pasam boobu ak digg Cheikh Mouhamadou Mountakha tax bi bi jugee bisiriñ bi joxee ndigal mu dem sëriñ Amsatu defee fa appel bas gi dafa wax ne sëriñ aatu màggal gi mujj jug dem nduggi ko dafa wax ne nduggam nawet moom màggal lay nduggale sëñ Tuubaa waaye kon ne xam ne ne jotuñu ak xaside yi waaye ku ne xam ne ne lii yàlla na ci xaside yi muy pas-pas bu rëy boo xam ne mbokki taalibe yëpp moom la ñu wuy see bis bi nag fi ñu tollogoon comité pilotage bi mboolem organisa organisateur yëpp ak mboolem commission boo xam ne dénkoon nañ la dara ci liggéey bi ñu ngi koy wër di ko saytu waaye li feeñ ci liggéey bi sëñ Abdoulahi dafa mel ni ni sëriñ Youssou waxee keroog ci bokki taalibe bi yëpp yëg ne Hizbut Tarqiyyah dañ leen a sàmmloo nosu nosu leen waaye ndigal lu ñëpp ko war a déggaloo kenn ku ci nekk toogoo di xaaru nag toogoo di xaaru ceeb da ngaa jàpp ne ndigal li tey jii yow yaa ko war a ànd ak Hizbut Tarqiyyah defee ko ni ko sëriñ bi bëggee yëg-yëg bi nag àgg na ci danañ gis ñoo xam ni jàpp ñu woon ne li fi daje tey jii ci ay xéwal li fi daje nii bu leneen ñëwatul woon sax mu mën a matale mbooloo mi kon day mel ne li sëriñ bi waxoon ne mun naa aliya yaa muqiitu bil xudur mumtari atin rasiyatun fil judur tawfeex jooju Sëriñ Tuubaa def na ko ca bés mu mel ni ku gis nii kuréel gi ubbee Matlabul Fawzayni nga xam ni Cheikh Mouhamadul Mountakha bi mu ko diglee dafa xool ñu ko doy muy Hizbut Tarqiyyah mu jox leen ñu di ko def fajar gu nekk di ko def ci njàngin wu sell ku gis ni ñu ko ubbee da nga yëg ni bëgg sëriñ bi ba xasi la ñu ko am ndax moom day dafa dañoo wax ni sëriñ bi dafa wax ni xasida googu de Matlabul Fawzayni day bi mu koy bind dara teg ko waaye bi mu noppee ni mu ko ñaane suñ borom noonu la ko suñ borom mayee kon lii daa bokk ci ñaanuk sëriñ bi lam waxoon ne daawtuhu wal istajaaba karama wa niltu maarumtu wa aruma lam waxoon ne antal karimu annal xadimu dërën udimu sijika sana yi ku gis bàngaas si fasantikoo yii ak jëmm yi nga xam ne am na ci ñooñ gisatuñu la nga xam génnatuñu yenn mbooloo waaye mbooleem kër yi wër kër sëriñ bi fu ci nekk nii ñu koy dundalee lan jàngum xasida boo demee ci biir jumaa ji fes na dell ban tëj ko waaye boo demee ci mbokk soxna yi ci ginnaaw itam na ko noonu mbokk sëriñ bi kër Cheikh Mamadou Moustapha ba ci kër Cheikh Mamadou Mourtada foofi dem di gi diggandoo ndigalul sëriñ bi tax na ba fu ci nekk boo demee da ngay jàpp ne fa kon ñu rafet njort ci ne sëriñ bi amee nañ ko ci ndax jënk na ko jàmbaar yoo xam ne seen dund gépp day xasida ndax soldaar lañ yoo xam ne jatu nañ jekk waxtu wu jot si seenum xëy seenum ngont lépp jëbal nañ ko Sëriñ Tuubaa muy jàmbaar yoo xam ni ku gis fi ñu toll tey jii ñu dëgmal ab siyaare dëgmal jébbale université bi dëgmal màggal gi sëriñ bi doon leen toggaloo barki dem boo njaay ñu wëlbati ko wàll laxasuwaay àndaat ak mbokki teel bi yëpp liggéey bi kon na nga xam ne sëriñ bi dénk ko ay jàmbaar yoo xam ne seenum xel ak seen pas-pas ci Sëñ Tuubaa ak seen yitte ci Sëñ Tuubaa matale na ko tarafet na waaye xaside yi ñu fi yëkkati mooy xaside yi nga xam ne moom la boromam daan wax ne yaddi taquttu wa lisaani tatalu bi mu nekkee ci xëybatul baxriya wéet lool xariban la dal aada booba day da daan jàng da daan bind bu mu noppee ci mbind mi rasulillahi salaa salaam ne ko lii nga bind dama bëgg nga di ma ko jóor moom sëriñ bi mooy jàngkat bu mag ba moo daan takkal boppam diggam di ko jóor sallallahu alayhi wa sallam fam tëdd kon tey fii nekk ci xorma bii nga xam ne barab bii nga xam ne wax na ne wajalhu ya rabbi ahabba maskani fii ardina laka walil maahi sani ñaan naa sa borom barab bii gënaaw makk ak madina munawara mu gën la ci pàkki soog yi barab bii nga xam ne ñaan na borom ba waj bu lahel xayra min al jihaati as sitti wakfiha anil bii nga xam ne wax na ne wajal harimana xariman amina wa kun bi xifdahi kafilan tamina xorom bii nga xam ne waxuma ñu daje fi di jàng waaye bu ñu fi daje woon ba ci yërmande yi xoolante liñ bëgg ci sëriñ bi lépp danoo ko am waaye mbokki tali bii kenn koo ciy wuññi wala nga ko yaraat amut ndax kenn ko ci nekk yeesal na pafosam ba yëg ni li ñuy may tawfeex yi tëbb ci lanwaari muhammad yi daw ci bis bi mooy ànd ak yar te loola kat sëriñ bi jàngaloon nañu ko ndax dafa wax ni sëriñ bay dafa waxoon ni amub yaray tax ñu xëy fam tegg ca kaw waaye ñàkk ab yaray tax ñu xëy teggee la kaw di la kon ko jëruñu kenn nii mbooloo yu toll kenn ku ci nekk bi ngay ñëw indaale sa àll indaale say kuréeli xasida sa xeeti daaji cosaan yoo xam ne moom day am na bis mu wax ne naam moos jàngi mii nii ñu koy déggee si kiwut noonu la ko malayka yi déggee lam waxoon ne danaa la fent fent danaa ko fental moom sama sang bi ay jàngi tagg yu bees tàq noonu la daaji génne waaye boo demee ca mbind ma lam waxoon ne wahab liyal xatta ma at tilaawa wahab liyat tajwida wal xalaawa ni ko suñ borom mayee moom sëriñ bi mbind ak mboolem jàngkat yi boo demee fële tey ña ngay sadd ay xasida yoo xam ne le sëñ Blaat waxoon ne moom lañ mas a gis bis mu xëy na nañ ma bindalal kaamil maasal ma ko sottil ma ko ñu defal ko ko tey suñ Tuubaa borom fayee na ko tey lu ëpp téeméeri bindkat yu góor ak yu jigéen ña nga fële di bind xasida yoo xam ne lam joroon yonent bi sallallahu alayhi wasallam li ñu jébbal sa sëriñ bi kon sëriñ Abdoulahi foofu la ñuy yemane ci bés bi di ñaan ci daraja yi sëñ Tuubaa lim ci diggee lépp ñu ànd ko moom barke Xaadimu Rasuul asalaamaaleykum wa rahmatullah ginnaaw bu nu sante yàlla julli ci rasulullahi sallallahu taala alayhi wa sallam di sant Serigne Touba xaadimu rasul noo ngi ñaanal Cheikh Mouhamadul Mountakha sunu boroom gën ko fee yàggal te wéral ko balim namm lépp ci liggéeyal Serigne Touba mu mën koo def ca nam gën a mate ak nam gën a sell ci barkeb xaadimu rasul tañ ànd koog moom ginnaaw loolu noo ngi siyaare bu baax mbooleem mbokki taalibe yëpp rek ci bis bu màgg bu sell bii nga xam ne maanaam bisub tawféex la ndax xasida yi fépp fu ñu koy yëkkatee rek bu fekkee ànd naag pas-pas ak pastéef ak yéene ju kawe nañ xam ne ñu ngi ci biir tata joo xam ne maanaam dara mënu koo yàq moo tax njàng mi fu ñu toll rek nay ànd ak set akok sell akok sellal bu baax a baax a baax ndax ci sellal googu mooy tax li nekk ci biiram muy ay leer maam ñu mën koo dunde ndax nit ki bu fekkee ne mi ngi mi ngi yëkkati xasida yi boole kook njub gu mat jub gu mat sëkk day doon koo xam ne lépp lu nekk ci biir rek sunu borom mën na ko caa defal tawféex mooy loolu ma doon wax ci xasida ak wolof googu daan ne la xasida yi day yar xel di leeral xolub murit te day rocc say ñaawteef nga far yor melaw Touba da lay tëbb ay xam-xam nga cey digg ay xikam te day yéege sag ruux tam ci ruuxuk sëriñ Touba ku koy jàng tey sellal tey sellal la wax ku koy jàng tey sellal melaw mag ña jiitu woon la lay sóob nga doon tànneef wu am cër ci sëñ Touba te day wommatit sag ruux ci ruuxuk Muhammadu te loolu lépp yaa ngi koy am ci barkeb sëriñ Touba ci kaw nag ki koy jàng na sellal xolam bu wér te muy jàng ngir yàlla ak yoneen beeg sëriñ Touba bu koy jàng ngir aw tur bu koy jàng ngir nga siiw bu koy jàng ngir ngistal nda ngistal du sëñ Touba bu koy jàng ngir nit ñi di xam bi nga ci féetewoo ba lay tudde sax googee jugal tuub te jëm Touba loolu lim ci jublu mooy dana ci am ñoo ci xam ne daan jàmbaar loolu ci xasida yi amaan sax ñu tànn xasida goo xam ne daan ko def xarit fi ne xasida goo gis mu neex ci sa xol rek yëgal ne xasida googu dëppoo naak sa biir fi na xasida gooy jàng mu neex ci sa xol tëyal bu dëgër xam ne dëppoo na ak sa biir waaye nag na doon loo xam ne yàlla rek nga koy seedaloo ak yonent bi ak sëriñ Touba waaye bu mu doon loo xam ne da koy fësal nit ñi di ko xam am na ñoo xam dañ koo fësal bu mujj sax seen tur yéen leen baaxoon na tudde tuddee tuñ leen ko waaye da ngay dégg ñu naan sëñ Bisri sëñ Taysiir sëñ Muwaahibu moo tax mu ne bu koy jàng ngir aw tur bu koy jàng ngir nga siiw bu koy jàng ngir gistal na gistal lu sëñ Touba bu koy jàng ngir nit ñii di xam bi nga ci féetewoo ba lay tudde sax googee jugal tuub te jëm Touba nde doo bisri doo tey siir te nekkoo di jës bu tam newoo ñoom te ñoom duñ yow nde ñoom ñooy Serigne Touba xasiida yi meññat la wu jebbee ci biir xolam bu leen rax lu bokkul kon ci mbindum Serigne Touba bu dul woon sëriñ Touba ci ak ceddo ngeen di dee du ngeen doon jullit bay doon murid yi safoo Touba ki lee dagg buumum njaam farug réer ci seeni xol defal leen gëm ak tawhid joxoñ leen dëkkub Touba koo koy Serigne Touba moo tax xasida yi buñ koy jàng maanaam waxuma maanaam moo xam répété la moo xam prestation la waxuma sax ñu koy jànge fii ci kaw suuf waxuma kaw suuf waaye asamaan yi sax waruñu ko faa jànge fi ne kii jàng xasida ab ak teewloom dafa war a maanaam mu mel ne ma nga ca xaras ca kanamu Serigne Touba nga xam ne Serigne Touba mi ngi bind léegi xasida gi jox ko ko léegi mu jàngal ko léegi rasulullahi ak suñu borom subhanahu wa taala maam teewla gi foofu la war a àgg nga xam ne waxuma la nga koy digtal nit ñi waaye malayka yi sax waroo leen koo dégtal da nga leen war a romb dem nga xam ne yàlla ci boppam ak rasulullahi dafa war doon jataay bu wéet boo xam ne yàlla rasulullahi sëriñ Tuuba képp yal nañ suñu boom defal tawfiq wasalaamu aleykum wa rahmatullah xasaayidi min mujizatil muntaqa salla alayhi man hadahu wantaqa xasaayidi min mujizatil muntaqa صلى عليه من هداه وانتقى هاجت قصائدي قلب كل من له سعادة ولن خاد الأمن